bàyyil pëli bàyyil pëli boy man jàpp ma xeet waaw non leen tuddati bul tuddati Samba bàyyi ko mu def waa baar la ba may wax ci titi avant may wax ci titi bëñam yi kan moo ci njëkk a def vidéo du yow ok da gis baara da tudd la da gis da ngaa tudd la wala mu gaara waale la ndax xeexul ak yow comprendre nga xam naa baara moo tax day soxor ci pël yi bàyyi leen pël yi bàyyi ko mu jóob def liggéeyam li muy def. Adama man moo ma defee vidéo ba romba pare naa ca. ok bul waxati ci pël yi bàyyi ko kuul nekk sa affaire. yaa ngi affaire yu ethnie dafa garaaw. àddina man ma stressé nit ko. waaw kon bàyyi pël yi bàyyi leen nu kuul ñu liggéey seen liggéey waaw. waaw dégg man aw waaw bu leen waxati bu leen defarati vidéo bul wax ci Samba nekkal ci leneen. boy bi pël bi la. waaw li nga ko wax dafa ñaaw li nga ko wax dafa ñaaw kenn du ko wax ay pël nangam nii pël nu xamee téléphone nooy waxee loolu nag yow tamit. dara garaawu ci. waaw non non garaaw na kay ah.